mais fii ci CNFA jàngal nañ leen lan moo nga xam ne di ngeen ko mën a gën a soxla euh, ci mbirum administration waaye lépp suñ ko tënkee rek mooy agent bi naka la war a mën a comporté woo bu demee ba ñu jox ko service mu commencé liggéey euh, ñu tudd ci déontologie tudd ci éthique mais tudd ci li nga xam ne mooy euh, mécanisme yi nga xam ne jumtuwaay yi nga xam ne ci administration moom nga moom nga war a xam agent bi war ko xam lim nañ ko léegi ci ci nasaraan xam naa ne mën nañ ci delluwaat waaye buñ ko tënkee rek mooy li nga xam bi agent bi pour que usager bi bu ñëwee jàkkaarloog moom mu xam ne kii moom mu nekk fi euh, kii daf ko war a ci bëgg muy accueil orientation loolu gis nañ dafa am problème ci hôpitaux yi ci service administration bi accueil posé na problème donc lii njëlbeen la mais formation yoo nga xam ne day continuer la euh, ñu jàngal leen ko nag ci li nga xam ne mooy ay euh, courrier administratif naka lañ ko war a yoree euh, agent bi daal nan la war a mën a def ba nekk agent bu mucc ay boo xam ne moom soxla te loolu ndigalu président de la république son excellence Macky Sall la. kon loolu initiative boo xam ne la dañ ko ko war a delloo mu njukkal bu ñu ko war a delloo parce que moom moo ko initié ne dafa bëgg agent yi ñu former leen tabaxaat agent yu bees loolu nag dafa dëppoo politique bi nga xam ne teg na ko muy plan Sénégal émergent euh, teg li nga xam ne tey mooy PAP 2A loolu yëpp dafa dëppoo ak li ñuy def nii parce que ci plan Sénégal émergent recommandation yu bëri dafa laal modernisation de l' administration modernisation nag dina laal cadre mais dina laal tamit ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey muy yéen ñi kon bëgg nañ beneen agent bu bees waaw façon agent bu bees la ñu soxla boo xam ne xam na luy éthique xam na luy déontologie dana tax yu bëri xew léegi ci administration incha allah dinañ ko mën a moytu